ak délibéra délibération ni ñu koy waxee euh, bu ñu jugee ci écologie dañuy dem euh, ci wàllum wérgu yaram tey nag dañuy dem foofu euh, ca dëkku Chérif muy Jolof fekk fa Modou Moustapha Ndiaye. aywa mbas mi lañuy ñuy waxtaanee foofee nee ñu département bu Linguère moom daanaka euh, am na ñaari téeméer ak ñaari téeméer limu doomu aadama ndax li ko manqué doom dong la muy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan ñoom mi daanaka mat na nañu ñaar fukk euh, askan wa ku ne am nga ci sa gis-gis ñi yëngatu ci wàllu mbir gu yaram moom nee ñu fi mu ne nii ngeen baal ma li nga xam ne mooy ñàkk bi euh, ñàkk wi rek moom mooy doon saafara duñ ci sori dañuy dem ca jolo fekk fa Mamadou Moustapha departement bu Linguère mbas mi mi ngi fi gën di law di fi def sax ay jee am na téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar yu amee doomu jàngoro bi fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñakk ci seen bakkan kilifa yi wéy di xeex ak feebar bi. askan wi am ci njaaxle lool. waaw euh, deuxième vague bi ñoo ngi koy dundee dundin bu xaw a compliqué fii ci Jolof parce que ku nekk dégg na instant bi cas yi fi ñu toll ku nekk dégg na aussi décès yi. wax dëgg yàlla nu ñu baree ci deuxième vague bi kon fi mu nekk nii compliqué na par rapport ak première vague ba nga xamante ne moom yàlla def ñu dimbale woon suturaal ñu ba jotuñ ci woon a am benn cas. yéeme trop doy waar doy na waar trop. ak daara avant ñuy wax ne corona am na fi ak léegi euh, cas dese yi nu mu demee demutoon noonu quoi euh, avant ñu ne corona dafi ñëw bien vrai que nag nit ñi doon wàññeeku mais ni mu demee nii nii. noo day wutoon noonu nag sérieusement. ñàkk yi ni waaj amal askan wi seen gis-gis wute ci lool. man sama bopp vacciné wu man sama bopp sama njaboot aussi man kay suma la man kay sama njaboot yam ah man sama bopp man gëwuma ko parce que lu tax gëwuma ko man mooy lu ma faj nit ki lu mu gëmoo du ko faj. lu tax gëwuma ko damaa xamul lu mu ànd ak ak lan moo waral vaccin yi. non man loolu ànduma ci loolu vraiment du sama gis-gis bu vaccin bi ñëwee na ñëpp vacciné wu pour yàlla mën ñu aar ci li nga xamante moo xew ci àdduna bi kon damay damay damay sensibiliser samay mbokk jigéen ñi heure bu yàlla indee vaccin bi vraiment ku nekk na vacciné wu ndax yàlla jëlee fi mbas mi nga xamante ne mi ngi lëmbee àdduna bi. ah si bon loolu dañ koy xoolaat c'est parce que am na ay docteur des fois nga seen seen vidéo mais dañ lay ragal loo de quand même des fois tamit nga seetaan mu ñeme loolu tamit. ñun daa après nu xam fu ñuy taxaw quoi mais nag ak borom xel lan ay sénégalais lan comme si loo xam ne réew mi da koo laaj dañuy essayé def loolu. mais la yii daal amaguma décision laa mën a wax rek. docteur pharmacien bii di wax ci njëriñul ñàkk yi. en fait euh, vaccin yi moom mën na am njeexital ci feebar parce que tey nit bu feebaragul nga vacciner ko cela veut dire que bon am na ay doomu am na ay par exemple ay système de dépense boo xam ne moo ci organisme bi dina ko mën a aar ci yeneen feebar boobu di ñëw. parce que su dikkee mu ñëw fekk fi koo xam ne moom moo ko ëpp doole du fa ñëw dugg bay faagaagal donc vaccin bi moom am na solo trop ci feebar. ñoom ñi nga xam ne ni ñooy jaay garab yi di xam ne ne bi mbas mi tàmbalee ak léegi ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan ngir garab bañ a manqué. en ce qui concerne les médicament xam nga boo seetee Sénégal nekkul na garab yëpp fii lañu koy defaree on est obligé de faire des commandes au niveau des grossistes bon en fait grossistes yooyu ñoom seen garab bitim réew lañ koy jëlee certes. chaque année noonu lay demee garab yu bëri day rupture mais par contre am na garab yoo xam ne aussi disponible na malgré y a des ruptures. mais assuré ngeen waaw léegi moom ça va quoi jusqu'à présent y a des ruptures mais ça va quand aywa ñu jaajëfal bu baax euh, Mamadou Moustapha Ndiaye foofee ca euh, diwaanu Jolof dëkku Chérif moom la fa li ñuy wax la askanu Sénégal di waxtaane ñoom moom la ñuy waxtaane parce que mbas mi laal na leen bu baax a baax Chérif 197 cas euh, rien que foofu ca Linguère département bi ba noppi itam 19 décès di fukki bakkan ak juróom-ñeent yu rot tax na ñu waxtaane mbas mi ak tolluwaay bi. lu jar a waxtaane la Fatick parce que surtout deuxième vague bi boo moom dafa dugg ci département bi rawatina daara nga xamante ni. Mhm. Euh, daanaka ci wàllu mbooloo ak takkute euh, nit ñi bari nañ fa ndax marché hebdomadaire bi euh, je pense que ñi ngi wax waxu vaccin mais li li jiitu vaccin bokk na ci aussi. moo geste barrière yi moo tax foofu moom côté sensibilisation bi su ko defee nit ñi di ko gën a jëfandikoo moom mooy lan takk masque yi ni koy waxee. di mhm. raxas loxo yi. parce que bala laata li nga xamante ni moom mooy vaccin yi di ñëw parce que vaccin yi tam bu ñëwoon it comme ni ñu waxee journaux bind ko mhm. moom mooy dafa am priorité ñoo xamante ni bu ñëwee ñoom ñooy priorité te ministère de la ci programme bi ñu tëral mhm. ngir teg euh, wàllu vaccination bi moom la ko waxee mhm. mais département boobu moom je pense que euh, lu jar jara insister aussi ci wàllu sensibilisation gis na nag ay initiative yoo xamante ni surtout Aly Ngouille Ndiaye à l'époque bi mu fi nekkee ministre de l'intérieur am na ay initiative yu ñu fa doon jël bu ko defee di sensibiliser je pense qu'il faut que dra ko mm. mobiliser encore comme ko ci ñi nga xamante ñoom ñooy élu yi mm-hmm. ak kilifa yi nga xamante tamit seen kàddu kawe su ko defee ñu gën a sensibiliser nit ñi parce que mi ngi def ay dégâts ci wàll woo nga xamante ne surtout jam foofu tamit structure de santé yi demeewul nii benn centre de traitement moo fa mën parce que mooy bi nekk Louga ku fa feebar tamit dañ lay transférer te ku ne xam ne ni maintenant Sénégal les centres de traitement sont débordés fees ñu ci bëri kon ay prise en à domicile la mm-hmm. ci dëkk yoo xamante ni njaboot gi dañ faa nekk donc dañuy exposé ñeneen ñi et je pense que li ci gën a am solo mooy ñu weer sensibilisation bi rek jëm ci wàll woowu ci muy muy jolof comme ni Sénégal yëpp mel ni fi mbas mi lawee très li ñu doon wax rek xam nga feebar bi dañoo dem ba benn instant dañoo jàpp ni que amatuñ contrôle bi. Mhm. Euh, moo tax ku nekk moo mën a aar boppam ni ko waxee. Euh, ñëw di sol sa masque di raxas sa gel man gel yi sax dafa mel ni ci première vague bi la gënoon a am. Eh, buzz parce que léegi rarement ngay gis <laughs> bu yor gelam di. ci deuxième vague bi am na nit ñaa ngi koy def ba léegi am na ñu koy def. man thermoflash quand même laa gisul ci deuxième vague bi comme ni mu gis ni mu bi. mooy nit ñi dañoo bizarrement. dañoo ñeme feebar bi léegi. Mhm. plus que ci première vague bi lañ ko gënoon ragal. Mhm. te tey jii léegi gën a reyee fii ci Sénégal te gis nañ ni franchement que actuellement lépp la lépp a débordé. Mhm. amatuñu contrôle bi. looloo tax sax ba nit ñi léegi seen yaakaar yëpp ñu ngi ko teg ci vaccin yi mais te vaccin yooyu tamit xam naa ni du yomb parce que tugal dëkk ya nga xamee ni ñoo koy defar rek ñoom déjà ñoom tamit. Euh, yëf yi matagul ci ñoom ña ngi koy ña ngi koy xëccoo seen biir <laughs> ñoom ñi nga xam ne nag ñoo koy xëccoo seen biir yow mi nga xamee ni nag dañ la war a servir ngay toog di xaar <laughs> di dire que pour nga euh, teel ci jot du yomb mois de mars lañ annoncé woon dégg ab laa Diouf Sarr am na jamono yoo xam ne waxoon na ci côté mois de mars bi dinañu commencé jot première dose yi mais là là là je suis pas mais bon on verra euh, naka lay demee mais comme que loolu nekk ko fi lu fi am mooy takk masque yi di raxasu ba set raxasu ba set takk sa ay masque di saprera bokk na ci li tax nga ñàkk sa bopp ñàkk nga ngay jëflanteel maanaam respect geste barrière wala respect mesure barrière geste euh, respect mesure barrière jaaw wax na sànq ne léegi léegi ak deuxième vague bi nit ñi dañu dañu dañu ñeme feebar bi man dama naan ñeme nañu lu ñu war a ragal nag <laughs> ñeme nañu lu war a ragal pour la bonne et simple parce que souvent quand mais jaa wax na ko te dëgg la mais Fatou mi ci takkuñu masque. Mm-hmm. ci dëkk bi. Mm-hmm. je suis désolé booy dox ci dëkk bi di nga gis ne nit ñi mais vraiment takkuñu masque yi. xanaa buñ takk der yi ne comme dañuy dañuy jàppaate. buñ seenee takk der yi da ngay gaaw takk sa masque boo pembe boo waasee nga tekki ko. mu dem am na ñoo xam ne dañu naan woy su ma takkee sama masque yi du ma mun respirer am na ku mu wax démb man su ma takkee masque yi damay tisooli rek. donc damay am problème pour pour tag ko donc euh, gis na am am barki démb sax waxtaan naa ak sama benn xaar sama benn xarit bu may faral di tooñ mu naan ma mm-hmm. euh, euh, masque yi est-ce que def nañu si dara loo xam ne boo ko nooyee sax tubaab yi def nañu si dara loo xam ne boo ko nooyee sax voilà donc mu am lu bëri yoo xam ne ñu ñu ñu koy voilà peut-être ay ay ay affaire yoo xam ne ñu ngi koy xalaat mm-hmm. mais comme je dis peut-être que généralement euh, euh, euh, yu mel ni yu koy waral mooy xëy na ñi ñi ñiy wax loolu xëy na dañu teggul seen bët ci ku nga xam ne feebar bi dal na ko dëggantaan dëggantaan boo ko gisee peut-être que loolu dina la gën a mën a gën a mën a sensibiliser donc mais bon on verra je sais pas moi man lu ma mënti xalaat lu ma lu ma comme ni nga ko waxee bu man lenn kese moo am te ñëpp wax nañ ko mooy fexe ba nga xam ne mooy mesure barrière yi mais dañ si nañ si waxaat nag ba dimanche ba ba vaccin bi ñëw. nañu continuer di wax ci mesure barrière moo moo moo mel nee la sensibilisation non la loolu affaire affaire bi question de la. je nekk fii di xaar sax naan état wala naan ku nekk sa bopp. jëmal fexe ba lay lawal jàngoro ji bu mu jógee ci yow Fatick. parce que fii moom li ñu naan weddi gis bokku ci te Sénégal. ku ne xam na ni at depuis mois de mars ba léegi mënoo fi xëy suba ci internet bi muy réseaux sociaux yi te tàgg woon fi nit absolument bu dul directement mbas mi la tamit sa indirectement parce que mën ngaa feebar dem ci structure de santé yi danoo fees tal nañ leneen maanaam médecins yi léegi dañu débordé te ku ne xam ne ñu fii ñun suñ doole mu mm-hmm. muy Afrique de manière générale mm-hmm. hôpitaux yi danoo débordé mm-hmm. personnel de santé bi doyul donc loolu nag moo li tax nag ñu pour moytu loolu mooy nit ñi foofu ñu gën a responsable am mais Chérif kii xeex je suis d'accord avec toi mais gis nga un peuple mm-hmm. da ci ay xeefam mm-hmm. c'est-à-dire euh, première vague bi ñu ñëwee gisoon nañu ay mm-hmm. ci quartier yi. ay euh, nu mu tudd sax euh, Fatima préventionniste yi. kenn gisatu leen. kenn effectivement. donc nit ñi dañuy soxla dem ci quartier populaire yi. dem ci dem këru parce que. ñun suñu suñu euh, suñu développement foofu la toll. Mhm. nekkul dëkku Europe yi nga xam ne ne que. Mhm. xëy bu jaaree ci média yi rek ñëpp dégg ko ñëpp appliqué ko. Mhm. tey mën naa jaar ci média yi. nit ñi dégg ko. mais mën nañ ci bàyyi bàyyi xel parce que mën nañ am yeneen préoccupation. wala sax mën nañ ko déggee benn nopp. mais tey euh, gisuma préventionniste yi gisuma croix rouge ci ci terrain bi te man jàpp naa ne loolu communication bi ñuy wax nii. foofu la war a jaar. très très bien privilégier privilégier l'approche communautaire. c'est important di sapera ñu lay sant di la gërëm ñu daw ci li ci yéen i kaay yi ànd ci ak Cheikh Diagne.